moom hmm? xale yi sonal nañ ko mais nag sama jabar aji la tudd ma ma wax leen aji moomu mhm. xam nga li ngeen wax nii soo moytuwul aji day jékki jël taxi wala mu sàq toog ñëw toog fii ci biir studio bi ne leen yéen damaa bëgg ngeen bàyyi sama alaaji mii <laughs> fiir na fiir koo xamante ne <laughs> li ngeen wax ni alaaji xaba da ngaa posé question rek mu ne la déedéet man kenn du ma man kenn du ma woo <laughs> ah, ah, ah. parce que voilà da koo xam na la muy fekk kër ga bu demee dëgg la de mais mais mais uh-huh. bi nga bi nga ñibbisee Sénégal. Hmm. waaw mais euh, sa sa frère ñëw waaw vas-y. Simon Simon tamit théâtre moom tamit ku baax ne sax woo na ma léegi. saa yu la neexee. waaw waaw bu message ñëwee. waaw waaw waaw. jëlal. ndeysaan waaw waaw. Hmm, ak Adja Adja Fat euh, Adja Fat Thioune moom tamit nekk ba Ndar moom tamit ñuy suivre ak jëkkëram. Hmm. ndeysaan d'accord d'accord alors euh, nga ñëw Sénégal nag ñëw toog.

bi muy doog a ñëw. balaa muy def benn rajo benn tele émission bi mag bi maa ko yoroon Sénégal. ku ñëw te jaaroo ci émission da ngay mel ne jaaroo fa. mu ñëw ñu boole maag moom mu dem studio Papis Konaté def album. Isbal. waaw waaw mooy jamono ji. morceau yaay bi bokk na ci morceau yi ah, ne ah, ah, ay morceau yi ne ay Subaana remix. ndeysaan pourtant morceau boobu sama sœur bi Astou. Mhm. même bu koy déglu chaque jour day jooy. ndeysaan dafa triste xam nga Malal dafa nekkoon. koo xam sama yaay da koo bëggoon juufa sama yaay da koo bëggoon. ndeysaan sama yaay da koy woosa ni ko ñaan yi ma lay ñaanal du ma ko si ñaanal kenn. Mm, xam nga Malal dafa tëxat bu ko defee dañuy xaar ba toog mu nee na ma ñaan nga sama yaay di ko fan <laughs> alors mu ñëw nag Malal aussi commencé nekk ci ay jéego. Mm-hmm. yow tam nga ñëw nekk sa waar. Mm-hmm. Euh, bi ngay toog extérieur. daa nga doon def foofu sa art mais mm-hmm. théâtre bi. ni nga ko doon gisee. Mhm. bi de loin bi nga est-ce que différence bi euh, changé mhm. non changé xam nga affaire yi mhm. dañ ko wax rek te affaire théâtre ak ka la waxuma pour wala dama koy mais nag waa soleil levant aussi. mais ay neex moom moo doon réalisé ah, seen. waaw mhm. moo ko doon donc ci côté réalisateur yi ngay wax. ci lépp. ok ci lépp. Mhm. parce que léegi tey da lay xool yow xam ne li mu soxla mi ngi ci yow. Mhm. ku mel ne Daaro tey. comme léegi da xool natt ko jàng ko xam ne kii li mu bëgg da koy indi. te noonu la ko indee. léegi mën naa romb ab dof bu nekk ci bedd mi. barke Sëñ Tuubaa mu indi ko dugal ko ci. parce que xam na li muy wut. mi ngi ci mi ngi ci moom. waaw. d' accord Leuz nekk na koo xamante ne moom bëgg nañu aussi. mu ñëw mu ñëw mais Leuz na du wax. non lii du wax. mais am nañ gan de. am nañ gan bu jugee Touba de. Leuz du wax oh, am nañ gan bu jugee Touba de. daa am lu ma lay wax. ah Ba du damay ñëw du ma dóor. am nañ gan bu jugee Touba de. dama topp doo ma leen de. Oh, uh-huh. dama koy laaj moom euh, euh, moom si si. Qui bëri lay feeñ mhm. euh, euh, artistes yi da lay mhm. day image. Mhm. waaw day est-ce que par exemple est-ce que signé ou nga signé ak contrat nga dem ak question mm. ci Adja. Mbaye Sapar nuyu naa la. Hmm? Ah. da nekk tey ci Adja tey nga nekk ci buzz ak bruit. Mhm. Ah? mi ngi feneen suba suba man na xam nga fan laa bokk mhm. doguma la. Mhm. man naa ngi ci lëz. lëz média. bu ma ñëpp soxlaa. lëz ma ñoom dañuy ñàkk. ak ku mu mënta doon. maa ngi ci lëz mais yenn saa yi nga toog defoo dara. mais garaawul. mais kon amoo contrat ak lëz boo xam ne da tënk ba doo mën a dem feneen. lëz tënku la. waxula waxula yow fii ngay toog bu dem jouer feneen les du ma tënk parce que sama waay la xam boo amee sa nit du la tënk mhm. ah mais mais loolu rek la mhm. loolu rek la ñun famille la mhm. na mu solo gis nga yàlla li mu bind si nit kenn mun kenn mun la koo tee lekk dëgg la waaw waaw ana ki jóge Touba <laughs> mais yu taxi yu eh? taxi hmm. lu tax amul amul amul amul amul suite parce que ñu bëri ñi ngi doon xaaraat tey mu mu ñu mhm. euh, euh, sénégalais parce que ko bëggoon. Mhm. surtout sa ça apparition mhm. dañ ko bëggoon. lan parce que ay écho am. Euh, est-ce que yu grand yu après après ba après après après. après après

loolu def lu nice mhm. mhm. mais mis à part euh, tey théâtre bi ñibbi si nga Europe ñëw nga macha allah euh, lan nga fi lan lan lan lan mooy sa projet fii biir Sénégal bi nga def bi nga ñëwee ba léegi à part bi ci lan ngay yëngu dara taxawaal mu ne <laughs> taxawaal wàññi poto <laughs> nga ne ko taxawaalu waaw ak wàññi poto ak wàññi ay poto waaw non am nga ci leneen loo ah, xamante ne waa. maa ah, ah, waa waa Touba. maa ngi leen di siyaare na ngeen def waay. ci loolu la ne. baa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax waa Touba. waa Touba ngi siyaar. alaaji rafet nga guddi gi moom naa guddi gi gis nga ne ku ko ku ko sentir rek. mën ngaa ñëw waaye si jàmm baax. naka mu toogal ak seen toogal. alhamdulilah toogal. bismillah. waaw waaw xëcc ko nañ ñëwaat na sëñ bi ñëwaat. na jégal alaaji ñoom xet nag ma fay ah. dégg. Hmm? <laughs> da nga fay dégg moo tax nga ñëw da nga fay dégg alaaji moo tax. ndeysaan hmm. moom daa bëgg waa dama cee bokk de. ndeysaan waay hmm. dama cee bokk sama maam uh, ki jur sama yaay. Mhm. kooku sëñ Touba bi bu tifli. ñaanal ko ba tifli. si gémmiñ gi leen dal. ndeysaan dama koy nettali benn benn doom si Issa Dieng mu nekk Europe. benn doom si Abdou Latif Dieng. xam naa mu ne waaye.